Tafatine contre Boignan 2, le choc des titans. Suivez cet événement exceptionnel au Sénégal et partout dans le monde grâce au pay-per-view. Rendez-vous sur la plateforme lambdiaspora.com sur pay-per-view event et cochez sur la rubrique live. Vous accéderez ainsi à deux propositions. Le ticket passe pour une personne à 9,99 euros et le ticket passe pour deux personnes à 19,98 euros. Une fois que vous aurez fait votre choix, différents modes de paiement en ligne vous seront proposés, à savoir le paiement avec votre téléphone mobile avec l'application Africa Mobile Money, le paiement par carte avec l'application Pay by Card et le paiement par PayPal. Une fois que vous aurez choisi le mode de paiement qui vous convient de plus, remplissez les informations demandées pour valider votre inscription. Par exemple, Pour le paiement avec la carte bancaire, les informations demandées seront votre adresse email, les informations relatives à la carte bancaire en tant que telle et le nom figurant sur la carte bancaire et le pays concerné. Validez le tout en cliquant sur l'onglet Payer. Payer et le tour est joué. Bonne suite de programmes sur Léoto TV. Tafatine, Boignan 2, un événement de Léoto Production.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 Lamine man dama. choqué. waaw dama choqué. voilà voilà je suis choqué dama am lu ma lu ma metti trop. j'ai même pas les mots ah pour pour pour exprimer li nga xam ne moom moo xew. non mooy dañ lay réer mais c'est c'est désolant c'est triste que lii am ci làmb parce que lii waroon nañ ko jombale suñu bopp war nañ ko dépasser te combat dafa yàgg ñaari mbër yi yàgg nañ ko waajal euh, promoteur bi yàgg na ko waajal amateur yi yàgg nañ ko waajal. te aujourd'hui c'est sûr et certain que Papa Sow warul mën a égale non mënul égale man bu ma ko yoroon du égale làmb donc c'est sûr que tey on reste suspendu à la décision waaw wax ni xalam demoon na bay neex buum ko dëkk. buum nga nee na tip te lii dafay posé waat beneen problème combat yii di ñëw est-ce que war nañ ko organiser. tout waaw euh, ku ñu sedd ci gaalu xaj nga lekk ca kay yaa tooñ sa bopp. ñun waxoon nañu mérité wuñu stade bu mel nii waxoon nañu ni ay ay ay ay saison ay dër lañ ñu war a defal wala ay saison weñ wala ay gradin lañ ñu war a defal mérité wuñu lii chaque dimanche nga gis spectacle bu désolant ñuy dajji saisi di sànni lii xew nii nag tey vraiment c'est le sommet et c'est c'est un alerte signal fort la alerte la pour combat yu mag yi di ñëw est-ce que war nañ ko tëgge fii mais est-ce que ñun ñii ñun ñi ñun ñii ku ci ñibbi sa kër on est tous en danger. Ah et c'est ça le ah ouais. le ah drame. ah ouais. Euh, c'est c'est c'est dommage. moi j'ai envie de laisser tomber la lutte. ah moi aussi. même moi aussi tam kaay kaay góor a. mais seen lamb nga ngoog lamb dafa metti. billaahi ndey maa ngi lay toog lu ko metti. ndey seen presse bi am na leen metti. nduru Papa Sow nga gaaj. lamb metti. làmba moo metti billaahi làmba metti làmba dafa metti làmba moo metti billaahi yaa ngi gis pël mu ngi jooy ndeysaan làmb rek nga mun am lii làmb rek moo mun am lii deux ans làmb amul chaque jour ne làmb violence ñu koy xeex mais direct ji noonu est-ce que médecin bi dina ko permettre mu bëre mais sans dépense si bi rek. waaw instant bi dañuy ne mënatul bëri. waaw nga xam ne médecin bi la mais tamit xamaguñ moom que mu ngi ci bi. li am noo koy jàngatee. ah doy na waar daal xam naa daal làmb moom fu mu toll nii. waaw waaw. image baa ngi commencé ñaaw daal rafetul. lu koy saafara. ah mooy fair play rek bàyyi seen yi ñuy def lii rafetul yow. waaw bi bilaay man mënu ma woon. ndeysaan ndeysaan wóor na yàlla. waaye bu rafet. bi ñuy def mooy que ni tey jii nii lii nii nii si stade bi rafetlu wuñ ko parce que amateurs yi mënuñu dagg seen ay billets 10 000 francs ñëw ci làmb ji depuis sànq ba léegi di gis boobu léegi vraiment violence bi fi am benn deuxièmement lii am nii lu ñu ñaawlu la parce que tamit tëggkatu sabar bi nga xamante mooy tëggal Siteu lu mënti xew Papa Sow bu ñëwee pour def ay saraxam war na ko bàyyi mu def ay saraxam parce que tamit làmb fair play lañ ci woote mais tëggkatu sabar boo xamante ni yow tëgg lañ la sant ngay ñëw di def violence loolu kenn sant ko ko lii nii am nii nag CNG bi ñun jël si ay matuwaayam lii ñaaw na trop ñun amateurs yi mënuñu tàgg billet bu cher lamb joo xam plus de deux ñu koy xaar mu ñëw nar a jeexee ci lii Papa Sow koo xool xam ni fi ñu toll nii dafa blessé gravement lii nag il faut CNG bi jël ci ay matuwaay gis nañ dimanche passé Forza ak Pagala damm nañ chaise yi sànni mais lamb pour lan parce que si stade bu mel nii tey ñu defal ñu ko chaque jour que jëfee booy di damm chaise yi sànni tey ñu ñëw gisaat lu mel nii tey kon lii est ce que Ama Baldé xañ na fii parce que tey jii nii lamb ji rek war nañ waroon na doon tey test tey ci Ama loolu nag ñu ngi ciy lancé message CNG bi nga xam ne ñoom lañ fi teg pour ñu jàppale waat ñi nga xamante tey ñooy amateurs jàppale aussi supporters yi ci kaw lii lii am nii tamit vraiment rafetlu wuñ ko ñu ngi koy ñaaw mais lamb ji dafa bëri insécurité boo xoolee ci biti yëpp boo yaa si fees dell nit ñaa ngi wax naan est ce que dinañu gé dinañ man mii rek naan suñu bakkan mi ngi ci danger loolu ñii yëpp di réclamer est ce que ñibbi mais lamb jarul loolu lamb fair play tey promoteur bi gagné na parce que tëgg na lambam